saf na sàpp comme d'habitude ne nga prêche d'une amnésie collective recoller l'AES à la CEDEAO un cadeau empoisonné donc suñu premier partie mooy prêche d'une amnésie collective dafa mel ni jamono ji ñu bari dañoo xaw a fàtte amnésie collective bi. waaw xam nga. qu'est-ce que tu sous-entends amnésie collective. waaw parce que quelque part te pourtant sax maa ngi ko doon wax la dernière fois de ma ne yu bari yoo xamante ne nii tey. Euh, sénégalais ñu ngi koy yàkkamti ci pouvoir bi dafa mel ne bu yàggul dara fàtte nañu ne dundoon nañ fi ay situation yu ko gënoon a tar te daanaka yëngalul woon kenn euh, euh, déjà man waxuma sax quelque part Bougane nga xamante ni il est dans son rôle depuis que Ousmane Sonko def sa sortie fële sa grand théâtre mhm. donc newoon naa objectif bi bokk na ci mu pousse yenn politiciens yi ñu génn ci ginnaaw presse bi ñu làqatu pour faire face Euh, depuis lors nag mel na ni Bougane il assume euh, ce rôle là euh, même si quelque part man damay jël un peu de recul donc ma xalaat ne lii xew Sénégal de manière générale nga boole ci sous-région bi et tout ça nekkul ay ay ay agissement isole nekkul ay loo xamante ni kii day ñëw fii wax fii kii ñëw wax fale kii ñëw wax fale pour man tout ça ça obéit à une certaine stratégie xëy na nag Bougane moo ci gën a fës parce que <laughs> quelque part man gëmuma ne mos na ànd ak opposition bi jël pouvoir bi man euh, euh, tolloon na fii temps ma doon wax ne acte yi muy posé boo ko seetloo lu ci gën a bëri ça arrange le pouvoir de Macky Sall pourquoi parce que ci li mu gënoon a nekk mooy affaiblir opposition bi te wone na ko ba yeewi askan wi ne dañuy daje pour teg seen coalition nga gis taxaw taxawaay bu mu ci mhm. euh, amoon donc suñu ñëwee ba quelque part élection jot mu ne day xaar deuxième tour alors que au préalable ne woon na <laughs> day soutenir anti système bi mhm. nga xamante ni quelque part ca la mu nekkoon ci loolu la nekk ba léegi mhm. xëy na nag bu pouvoir bi changé buggoon na xëy na toog bàyyi ba ci kanam mu doog a opposé bàyyi <laughs> sama yi ñoom ñu defal ko loolu. Mhm. malheureusement tombé na ci piège Ousmane Sonko en répondant génn moom ci boppam pour euh, euh, def son opposition ma jàpp nag que. lu muy def noonu ak ñeneen ñi nga xamante ni ñu si bëri ñu ngi génn jàpp naa ne stratégie la boo xamante ni dafa am ñu ko teg pour déstabiliser sa pouvoir. justement stratégie boobu nga wax ñu ko teg da ngay sous-entendre que ni le pouvoir sortant euh, surtout le président de la République l'ancien président Macky Sall moom moo nekk en tête. xam nga man sax Macky Sall dama yàgg a jàpp ne ak ak ndongo la rek gu ñuy yónni. te ba muy bëgg a jeexal mandaam ñi ko yónni woon ñi mu nekkaloon fii Sénégal gën nañu wone seen bopp ba ñu ko. joxe ab beneen mission boo xamante nii war na koo dox après te daanaka sax xaaruñu Macky Sall kite <laughs> xam nga ñun des fois yaakaar naa ne lii xew Sénégal sax duñ ci bàyyi xel trop quoi. Mhm. maanaam voilà un président en exercice. koo xamante ni réew réew la jiite pareegul mandat am beneen président wu beneen réew. di ko chargé ab mission. waaw ba nga koy wax 4P boo pareegul. boo pareegul boobu mu ngi ci pouvoir bi ba léegi donc mu nekk euh, loo xamante ne nii pour man euh, xel mënu ko nangu léegi nag. Macky Sall moom nga xamante ni dafay nekkaloon ay intérêt France di dox ci loo xamante ne nii moom mooy jëmale France kanam bu ñu demee tey ba ñu ne quitté na la présidence de la République mais mu ngi continuer di dox. ci euh, euh, euh, comment dire affaire u Macky Sall affaire u Macron de manière officielle nga mun a comprendre quelque part que force yi nga xamante ni ñu ngi woon Sénégal nekk ci ginnaaw Macky Sall jógee guñu fi te sama conviction mooy que li ñu bëgg mooy comment dire pousser pouvoir bi ci cinq ans yi ñu wone ne mënuñu comme ça ñu organiser yenn élection yoo xamante ni ñoom dinañu yaakaar ñëwaat <laughs> moo tax quelque part ba jàpp Sénégal fii toll nii dafa mel ni comme si. benn amnésie collective moo fi am maanaam li xew demb ak bërki demb am na ñu bëri ñoo xamante dañoo jàpp ne sénégalais yi fàtte nañu ko ba ñoom mën nañ leen a yóbbu ci yeneen débat yoo xamante ne nii mooy wane ne pouvoir bii dafa tële que quelque part li nga xamante ni xewoon na fi bërki démb ak bërkaati démb nekk yu garaaw yoo xamante ni ñoo waroon jusqu'à présent nekk les sujets euh, ñoom yi fi def ñu bëgg a occulter boobu di mettre en avant li nga xamante ne ni ñoom moom la ñu jàppee comme ay manquement au pouvoir bi comme loo xamante ni pouvoir waroon na ko def defu ko. léegi pouvoir bi def nan la ñu mën a mën a taxawee parce que jamono ji dañ nga xam ne ñoo quitté woon devant la scène di dem ci télé yi di wax loo xam ne heure bi da leen waroon fekk ñoom ñuy répondre devant la justice. <laughs> waaw c'est normal xam nga quelque part maa naan euh, daanaka euh, euh, ba ba bu yàggul dara sax bu politicien yi avant grand théâtre rarement nga doon dégg acteur politique buy génn di dingal Sonko Thierno Alassane tante na ko fi te général ba mu laal baaxul dafa dem toog ak ndànk donc pour diir que avant <laughs> euh, comment dire rencontre euh, rencontre Ousmane ko ak euh, les jeunes de Pastef daanaka opposition kenn waxtu ko woon. Mhm. c'est parce que foofu wax na fa am euh, kaddu yu mu fa jibal ñu bëri bëgg <clears throat> sukkandiku ci occasion boobu pour quelque part gën a <laughs> wane seen kanam mais dans tous les cas man jàpp naa ne am na thèmes yu bëri yoo xamante nii ñoom moom mun ñoom munoon nañu ko sulli. Euh, ba mu des yooyu munoon na ñëw sul itam yëpp ba mu des yooyu déjà euh, euh, wàllu mbënd mi <laughs> bu ñu fàtte ne Macky ñetti bee lañ ko doon dàkkantalee à un moment. Mhm. mbas mi mbëkk mi mbënd mi <laughs> loolu c'était entre deux mille ak deux mille vingt deux. Mhm. mbas mi deux mille vingt et mbëkk mi deux mille vingt deux mille vingt bokk mbas mi deux mille vingt et un mi deux mille vingt deux mbëkk mi. Mhm. donc loolu yëpp fii la xewee. toog nañ fi en 2022 bu ma juumul nga xamante ne ni doon nañu déploré déploré près de 400 personnes yoo xamante ne nii ñàkk nañu seen bakkan ci géej gi nga xamante ne nii euh, euh, euh, sénégalais yi loolu da leen a métti ba ñoom ci seen bopp ñoo organiser benn journée de deuil national xaw ma ndax yaa ngi koy fàttaliku ou pas. bien sûr ci je pense le Mimi Touré ak Macky seen problème yi tàmbale fële ca assemblée nationale ba Mimi Touré. participer woon ak opposition bi ci célébration wu célébration symbolique day de deuil national mhm. boobu mais boobu ana autorité ñëw ñu ngi fi woon non mais maanaam ñoom wax ne un sénégalais wala deux sénégalais lab na ci géej gi ñoom dañ ko doon gisee comme euh, euh, comment dire la manifestation de leur échec. le premier ministre d'alors sax da doon wax ni xale yi di jël mbëkk mi ñoom ñëpp am liggéey. <laughs> waaw dem ba naan sax am na ñoo xamante ne dañuy dem foofu pour découvrir. Euh, dem xooli xooli xooli xooli lampu Europe yi. <laughs> donc bu nekkee de euh, sujet yooyu la ñu bëgg a yëkkati pour ne dañuy mettre en mal euh, population yi ak le pouvoir jàpp naa ne du sotti parce que sénégalais yooyu ñuy waxal fàttewuñu ne bu yàggul dara. les jeunes doo toog une semaine te déggoo ne ab gaal mu ngi tenté eh, génn Sénégal wala ab gaal génn na Sénégal ña ca nekkoon ñu si bëri ñàkk nañ seen bakkan. Mm-hmm. loolu bërki Dembo Ndiaye la kenn mënu ñoo dugal ci ab comment dire amnésie boo xamante ne nii ñun dañuy analyser fàttali ne démb ak barki démb yooyu yëpp xew na fi. Mm-hmm. mais c'est c'est la c'est la même chose ak Abdoulatif Coulibaly. man Abdoulatif Coulibaly quand je le vois muy multiplier ses sorti di attaquer le pouvoir mais dama naan kii wax dëgg yàlla gars yi yéex nañoo. Euh, euh, euh, woo procureur procureur yeex na ko woo puisque yow responsabilité réhabilitation building administratif mm-hmm. du Abdoulatif Coulibaly moo ko yoroon waaw yow ñu ne la defaraatal benn immeuble waxuñu tabaxal de defaraatal ab immeuble immeuble boo xamante nii dafa taxaw mm-hmm. ñu ne immeuble bi am na lu ciy sooxe ñu ne la defaraat ko ci defaraat boobu nga mun cee def cinquante milliards ba pare xëy gannaaw suba ne yaay joxe ay leçon de morale xam nga ne soo amee temps wax c'est parce que dañoo lijjantiwul say bagages. effectivement yooyu nag moo fi xew tey jii nii nga gis ñoo xamante ne dañ ciy def lu ne weng maa ngi rappelé ne euh, cité bu nekk euh, kii pompier. Adowa fi pompier nekkoon Adowa ma ngoog Adowa boobu dix immeubles lañ fa def bu ci nekk defe naa euh, dix étages dix immeubles de dix étages. te defuñu fa cinquante milliards yi Abdou Latif Coulibaly wax ne moom la defara defaraate benn immeuble moo tax ba fii immeuble ba tàkkee onzième étage may leen kenn waruloon woo sapeur immeuble boobu xaalis bi ñu ci def te sorewut ak géej moo waroon a doxal boppam dem ba géej fay boppam ñoo taxaw cinquante milliards du caaxaan donc ñooñu nag tey ñoo bëgg a ñëw di lëmbee dëkk bi mais xadisi la man su ma bokkoon benn bokk man ma ne bokkoon bennoo bokk yaakaar. Mhm. Hmm? am lu ma jël te waruma koo jël. Hmm? su ma déggee ne Ousmane Sonko dem na seeti sëñ mu taxa dem na seeti sëñ Babacar Sy Mansour hmm? dina defaraat samay bagage te xam ne woo ma léegi léegi mu jot. ah bon kon loolu visite bi démb yéen a xam beneen lecture boo ci am. nekkuma ci boppu Sonko xaw ma lan lay xalaat mais man dama ne su bokkoon bennoo bokk yaakaar. Hmm? ma dégg ñu ne Ousmane Sonko dem na seeti xalif des Mouride dem seeti xalif des Tidiane ci contexte bi ñu toll nii ma nekk Benno Bokk Yaakaar am lu ma jël dinaa tal leneen dul génn ci média yi di wax parce que bu ñu nee Ousmane Sonko dafa dem seeti xalif yooyu waxtaan ak ñoom ci projet bi suba ak gannaaw suba ku ñu fi convoqué ngay daw ne da ngay dem seeti ab xalif pour mu génneel la ci xalif bi dina xam ne projet bi kat bind nañ ci ku jël delloo. pare hmm. visite bi. <laughs> ça s'est fait sans tambour ni trompette. <laughs> ba ko de toutes les façons ku ñu fi woo nga daw dem ci ab xalif. Hmm. soo yeggee ci xalif ba xalif bi dina xam ne projet bi ñu ko doon wax jël delloo da cee bokk. Hmm. te comme jël naa man mi bokk benn bokk yaakaar dinaa ko delloo ji. lecture boobu nga def ci visite bi. loolu laa ci def. d'accord léegi nag ñu jël <laughs> suñu sujet bu mag a mag bi. alors Mame Birame sommet CEDEAO bi hmm. génn na euh, lu ci gën a fës mooy ni euh, waa AES tamit créé nañu seen.